Je vous fais lecture du communiqué numéro 85 de ce lundi 25 mai 2020. Le ministère de la Santé de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1091 tests réalisés, 83 sont revenus positifs. soit un taux de positivité de 7,6%. Les cas positifs sont répartis ainsi. 79 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre SCAT Urbam 1, Cité Apexi 1, Rufisque 1, et Thiès 1. 59 patients ont été contrôlés et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. des autres patients est stable. À ce jour, 3130 cas ont été déclarés positifs, dont 1515 guéris 35 décédés et donc 1579 sous traitement. Le ministère de la Santé de l'Action sociale exhorte les au respect des mesures de prévention individuelle et collective. tey bésu altine 25 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen yi may waaj a lim ci junni ak ak benn test yi ñu def juróom-ñett ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar ak contact ak ñeenti cas communautaire benn ci Scat Urbam benn ci Cité Apexi benn ci Rufisque benn ci Thiès juróom ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróomi cas ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba senegal wàññi na ñetti junni ak téeméer ak fanweeri cas positif junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom wër nañu ci fanweer ak juróom ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam